Euh, ci la ñuy màggal 14 ans assassinat bu euh, Oumar Lamine Badji ngir waxtaanee boobu boobule ba léegi famille am euh, taxaw di la justice même bu fekkente ni sax am na ñuñ ci condamné moo waral tey ji ñu dalal kile di Seydou Badji nekk coordonnateur bu collectif Oumar Lamine Badji ak tamit porte parole famille bu Oumar lamin Badji ñu fas yéene waxtaanee kon dossier bu Oumar Lamine Badji ñu lay nuyu Seydou Badji di la dalal jàmm. Ndeye Kumba Moro mhm. kontaan naa ci seen invitation maa ngi remercier seen responsable rajo Rewmi FM bi may déglu de temps en temps mhm. tey kontaan na bu xam ne vraiment dina permettre ñu mën a dellu siwaat ci ay point yu bëri ci mbiru euh, reyu Oumar Lamine Badji voilà bala ñuy ñëw ci assassinat bu Oumar Lamine Badji dañu lay laaj sax déjà pour auditeurs yi xam yow yaay kan pour Oumar Lamine Badji waaw man euh, Seydou Badji comme ni ma ko waxee sànq comme ni nga koy waxee tamit auditeurs yi yëpp maa ngi tudd Seydou Badji man may coordonnateur bu anniversaire El Hadj Oumar Lamine Badji teg ci tamit man maay porte parole famille bi depuis mbir bi bi mu amee maa ngi ci position boobu pour expliquer askan bi lépp li am li famille bi tamit taxaw pour jotali ko àdduna bi yëpp man maa ko yor. Hmm. donc loolu mooy sama position par rapport au dossier d' Oumar Lamine Badji. donc frère nga ci Oumar Lamine Badji. waaw fa laa bëgg a ñëw nii. Oh. parce que mbir bi ñu amee mbokk bu jege man au point trois années après la dugg parce que bi ma gisee mbir mi ni muy demee su ma ta du baax man frère Omar Lamine Badji la voilà voilà tey jii kon euh, Seydou Badji nga nekk frère Oumar Lamine Badji ñuy fàttali auditeurs yi moo nekkoon président bu conseil régional bu Ziguinchor ñu daal di koy mhm. assassiné woon boobaak léegi mët na fukki atak ak ñeent euh, tey jii mhm. Seydou Badji dañ lay laaj nga ñëwaat ci euh, assassinat bu Oumar Lamine Badji naka la demee exactement oui boo laajee naka la demee dafay mel ni peut dañ ko xam wala dañ ko càmbar balaa muy am. Mhm. loolu la tubaab di wax genèse. Mhm. mais lu tax tey mu neex ma pour ma wax genèse assassinat Omar Lamine Badji. parce que après enquête bi te la ñu am information yu wóor que ndekete du noonu la ñu jóg ren ñëw rey Omar Lamine Badji nit ñoo waxtaan fu gën a kawe taxaw jël ay moyen wàcce ko ba base ba base ba lijjanti taxaw ñëw pour rey Omar Lamine Badji pour gàttal wax ji mooy le vingt six décembre deux mooy seen premier réunion seen réunion boobu li ñu annoncé ñi fa fekkoon réunion ba mhm. mooy projet assassinat à l'âge Omar Lamine Badji mhm. motif bi li nga xam ne loolu moo leen loolu moo tax ñu jóg pour rey ko loolu moom expliqué wuñu ñi nga xam ne dañu ñëwoon ci réunion boobu. d'accord réunion boobu sax amoon na ñaar ñoo xam ne d'accord ñoom ci projet boobu mais ñoom dañu leen téye ñu ne leen doo leen génn ci dëkk bi parce que boo leen génnee di ngeen dem dénoncer li am lu 26 décembre passé. Mhm. le 28 la ñu tegaat deuxième réunion. seen réunion boobu la ñu taxaw lépp plan bi ñu war a def parce que loolu yëpp mu ngi ci enquête bi. léegi nag le trente la ñu ñëw yendu ci benn dëkk boo xam ne bu jege si Sindian bu ñuy wax Ouniyok ci guddi boobu lañ fa jógee dugg ci village bi pour def li ñuy war a def loolu moo tax jeunesse bi sénégalais yëboon war nañ ko xam fan la jaar ak naka la mais raison principale yooyu dinañ ci dugg plus tard. Mhm. mais li tax ñu rey Oumar Lamine Badji tamit bu fekkee ne nga am na fu ñu ko doon tënkee di ko nas di ko nocci tamit bëgg nañu auditeurs yi bëgg nañu xam euh, lan moo tax ñu assassiné Oumar Lamine Badji. waaw Oumar Lamine Badji waaw. ci li ñu xam. ci li ñu xam ci information yi ngeen am. les information li ñu am. ak tamit moom lu ñu daan jottali di kuy expliquer. moom demoon naa ba deux mille cinq la mbir mi commencé parce que dañ ko commencé woon di ko contesté maanaam ndombol tànk bu mu yoroon ci parti bi ci na moo fa nekkoon lu yàgg comme secrétaire général fédération départementale PDS bu na donc bi ñu koy contesté nag donc booba lay yu bëri contre ko di ko bugg a génne ci postam moom mu résister nag. mu daal di résister est-ce que mën nga ñëw ci jour assassinat bi ci boppam. oui naka la jour assassinat bi naka ngeen ko yëgee yéen. Mhm. ñun ñun mën nañu wax ne que euh, jour trente décembre. Mhm. presque bruit bi maanaam bi ñoo na ku nekk dinañ ko wax dañ koy waxtaanee. Mhm. naka la demee voilà lii nag dañu ñu bëri wax nañ ne ñoom dañuy yëg ne que Omar Lamine dañu koy rey mais naka lañu koy yëgee mooy fuite la alors pourquoi pour ñun jour boobu fuite boobu am na pourquoi joxewuñu Omar Lamine sécurité bu doy pour pare à toute éventualité mais loolu amul dañu bàyyi Omar jóge Ziguinchor dugg Bignona préparé wu parce que am na kër Bignona bi ñu jógee na ci la wàcc Sindian léegi bi mu wàccee Sindian ci jour boobu ki nga xam ne moom la ñu jàpp le 2 janvier 2007 moom dafa doon def émission dafa tudd Abba Diédhiou mhm. bi muy pare émission am balaa muy jeexal ci la def benn léeb nee na dina am garab bu rëy boo xam ne dina daanu tey ci Sindian mhm. te booba bi muy démarré euh, émission dafa ne jàmbaar ji dugg na Sindian El Hadj Omar Lamine Badji dina julli suba fii Sindian Mm-hmm. bu muy jeexalee émission bi ci la teg net boobu mm-hmm. donc mbir mi pratiquement prémonitoire la ci tubaab bi ko wax mm-hmm. dañ ko préparer càmbar moom mooy cerveau bi donc noonu la demee ba jour bi maanaam ci niñ ko assassiné dañ ko fekk këram dañ ko fekk bureau naka la demee exactement waaw ñoom dañ ñëw këram comme ni ma la waxee dañ jóge un yëpp ci guddi boobu waaxu yu metti dugg force te yéen teye kër gi kenn mënu faa génn kenn mënu faa dugg ki njëkk génn ci kër gi jaakaarlaak ñoom Omar Lamine la kon bi muy jaakaarlaak moom mbir mi noonu la xewee donc euh, ci lañu leen euh, def mbir mi après door a euh, quitter village bi dem fi ñu jóge woon mhm. waaw donc mu mhm. nekkoon bi ngeen jég yëgee ni associé nañ ki lee di Omar Lamine Badji yéen ñi ko mhm. jege yéen famille am lan moo nekkoon seen santiment bés boobu le naxar naxar ba tey jii moom lañuy dund am na ñoo xam ne bu le 30 décembre jotee mhm. du ñu mun a génn dañuy feebar ñun nag yàlla may nañu dañ muñ loolu moo tax ñu nekk ci dossier bi ñu consulté ñu vingt personnes ñoo xam ne ñoo nekk ci comité bi di liggéey di càmbar di wax ak rajo yi di wax ak télé yi expliquer mbir mi ni mu demee mhm. lu ñu xam bëri na mhm. mooy boo jëlee arrestation Abba Abba Diédhiou Mhm. pratiquement mooy cerveau bi bi ñu foofu moom la la ñu arrêté déjà en 2007 que la ñu commencé di arrêté ñeneen yi ñi nga xam ne ñoo bokkoon. Mhm. parce que dañu dañu tolloo euh, nombre de quinze personnes. Mhm. mais en ci diggante boobu six personnes génne nañu àdduna pratiquement neuf ñoo desoon ci loxo justice. mais ci neuf yooyu. Mm-hmm. am na ñu daw. Mm-hmm. donc bu ñu doon xaar euh, jugement yi mënuñ mënuñ ant mën naa wax Abdoulaye Wade moom jugé wul ñi ñi ñuy arrêté en deux mille sept. Mm-hmm. ba deux mille ñu commencé di attaqué mbir mi de manière frontale. ci lañ leen wax na que bu ñu ko deful am na pexe yu mën a jóg ci ñoom. ci qui fait que première alerte mu ngi am mars 2014 donc fausse alerte la dañu waxoon ne dañuy jugé ñu ñuy arrêté ci mbiru Omar Lamine Badji le mars 2014 mais bi ñu toogee un an maanaam janvier 2015 ci la ñu leen jugé loolu la mbir mi daaw nekkoon ci euh, rey Omar Lamine Badji waaw. léegi ñaata lañ ci jàpp ne ñoom ñoo faat Oumar Lamine Badji ak ñoom bi ñu taxawee lan lañ wax ni moo tax ñu rey euh, kile di Oumar Lamine Badji. bien ci mbir moomu ci jour jugement bi lañu ko mënoon xam. Mhm. parce que bi juge bi liiree euh, arrestation yi enquête bi maanaam enquête bi li mu li mu joxe li am mooy li ma la waxoon ci début ba. lool dañ ko maintenir dans le procès verbal. Mhm. mooy première réunion le vingt six. Mhm. le deuxième la deuxième réunion c' est le vingt huit décembre. Mhm. et le trente la yendu ci village boobu bi ma leen wax ñu ñëw rey Omar Lamine Badji. léegi nag li ñu xam mooy xaalis la ay nit yëkkati muy tolloo quinze millions. ñu ne war a jox bu ñu séddalee. ñi nga xam ne ñoom ñoo d'accord pour ñu roy Omar Lamine Badji mhm. kon bi ñu leen jugé le vingt six janvier deux mille quinze muy nekk juróomi nit ñoom la justice reconnaître mhm. carrément que ñoom dañu bokkoon carrément ci plan bi ak ba ci rey Omar Lamine Badji mhm. ñeneen ñi nga xam ne dañu bokkoon ay sept autres personnes ñooñu dañu leen mujj libéré kon loolu mooy jugement bi amoon en janvier deux mille quinze. ci ci ci jugement boobu est-ce que waxuñ ne am na ay commanditaires. ci jugement bi. Mm-hmm. am na deux côtés yoo xam ne mënuñu ko exploiter. waaw mooy juge bi daf er, annoncé na ko. nee na la voie politique exploité wuñu ko. Mm-hmm. les commanditaires kenn xamatu lañ xamuñu lañ ba léegi. ba léegi mais mais Abba Diédhiou. Mm-hmm. xam na commanditaire yi. loolu moo tax. Mm-hmm. ñu éliminer Abba Diédhiou. Mm-hmm. léegi bu ñu éliminer a Diédhiou amul beneen pexe bu ñu mun a xam mais Abba Diédhiou Yankuba Dia Sobolok Sané. Alain Alassane Diédhiou. Ismaïla Ampa Diédhiou. ñooñu xam nañu mbir kon trois éléments yi ñaa xam ne ñi daw ñoom xam nañ ba tey ji mi lay wax nii ñaar ñi nga xam ne ñooñu lañu ñu tëjoon ci cinq yi kenn ki génn na àdduna en 2017 le 4 euh, novembre 2017 mu des kenn ku tudd Omar beneen tur bi pour pour ne pas jaawale beneen Omar euh, Sané mi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi. Mm-hmm. moo kooku turam mooy Makanake voilà Mak Makaleke. Hmm. voilà benn joueur euh, Cameroun lañ ko tuddee kooku moo nekk prison ba tey. ba tey kon. Hmm. kooku moom su fekkee ne nangu na moom mun a apporter des informations ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jox xaalis mais foofu nag ñoo ñi nga xam ne dañuy dekkoon ci prison. dañu mànkoo ñoom ñëpp bugguñu annoncé benn tur mais aba ci enquête ya aba joxe na ay information ba mu sensibiliser donc man maa ngi ba bàlle ma ci wax ji mhm. di ñu sa nekk euh, information bi aba joxe dafa xóot ci lañu ko pexe ñu génne ko àdduna pour mu am mbir mi bañ a feeñ Mhm. loolu moo tax ñu ngi insister bi nee nga mhm. maanaam bu fekkee dañu jàpp ne ñii ñoo rey maanaam ña leen mhm. jox xaalis wala ña leen fay wala ña leen yónni ba léegi kenn xamu leen Aba Diédhiou moo ko mënoon moo mënoon joxe information yooyu te euh, dañu ko éliminer naka lañ ko élimine ci naka waaw euh, problème bi parce que ci enquête lañu nekkoon bon ñu njëkkoon dugg ci enquête bi bi ñuy buggee rey Aba ñooñu dañu leen écarté ci la ñu andi ñeneen enquêteur enquêteurs yu ñoo wàcc Ziguinchor mhm. di joxe ay bilan ci seen enquête ak seen euh, euh, maanaam euh, bi Aba lu muy joxe comme information léegi nag bi ñu senti ne que Aba information muy joxe dafa graaw ci lañ jël beneen plan mhm. plan bi nii la demee Ah parce que Abba dañu ko téye en prison suñu koy génnee juge d'instruction moom mooy joxe autorisation pour ñu génne ko jour bu ñu ko génnee le 7 mars 2007 booba juge d'instruction mu yoon Dakar ñu génne ko ci prison bi ci lu tubaab di war reconstitution des faits nañ ko waroon andi si donc ci yoon bi la ñu wax. ne Aba Diédhiou dafa tëb dafa tëb ci oto bi mu daanu ci tali bi. Mhm. ama gaañu gaañu yu métti gaañu gaañu yooyu moo ko rey. Mhm. mais bi ñu koy génne jamono ba a avocat am mu nekk Ibrahima Sène yëgul woon dara juge d'instruction yëgul woon dara donc kan moo joxe droit pour mu ñu génne ko de prison. Mhm. pour la reconstruction des faits à Sindian. kon mbir bi foofu la commencé lëndëm. Mhm. lëndëm bi foofu la nekk voilà. kon si ngeen tënk ni yéen si ngeen jàpp ni dañoo éliminer Aba Diédhiou parce que moom moo munoon wax ñan ñooy commanditaire euh, bu assassinat euh, bu meurtre bu Oumar Lamine Badji. léegi bien sûr am na ñu mhm. condamné si si si si si si procès bi ñan lañ condamné exactement. waaw ñoom ñu laa cité. Euh, tout à l'heure mais mën naa revenir. parce que yéen ba léegi yéen a ngi laaj justice ay ca mën nga si ñëw rapidement. voilà ñii ñi ñi ñuy jugé au nombre de sept la woon c' le vingt six janvier deux mille quinze. Mhm. mais ñu confrontation bi bi mu demee ba pare. waaw. ba ñu reconnaître les euh, les coupes les véritables coupables cinq la ñu woon. Mhm. mooy ñi daw. Mhm. Yankuba Diasobolok Sané Alain Alassane Diédhiou mhm. Ismaïla Ampa Diédhiou mhm. Abba Sané pardon maa ngi ne wax Abba Sané euh, Oumar euh, Makeleke Sané ak Arafan Sané muy cinq personnes mais trois sont jugés par contumace donc ñoom daw nañ loolu na tubaab di wax par contumace donc pour ñun du ñooñ lañ mën a delloo Sénégal mm-hmm. dëgg bi dina am dinañ mën a lépp dina feeñ euh, Oumar Sané mi nga xam ne moo des prison tey mm-hmm. fekk ne nanguwaat nañu ñu dégluwaat yi carrément dans le fond Oumar dina wax dëgg mais vérité bi mooy ñooñu ñoom ñoo ñëw rey Oumar Lamine Badji mm-hmm. parce que enquête bi découvrir na avec des circonstances bien faites ñu jàpp leen tëj leen juge leen même ñun ñu nekkoon ci euh, euh, tribunal ba jour ba. Mm-hmm. boo dégluwee juge bi ñu leen déglu ñuy wax ci la sentir ne si mbir mi ñaari nit ñoo nekk ci biir parce que ñeneen yi dañu leen boole de force de pare ñu consigné leen duñu génn ci ci dëkk ba. depuis le vingt 26 décembre 27 28 29 30 mosuñu génn dem fenn parce que dañu leen bloqué loolu la justice xool ne dañu leen bloqué te bokkoon nañu ci réunion ba mais ñoom ñëw ñu si ña ñu ñëw si ña mooy ñi ñu cité ba ñu jàpp leen ba tëj leen mooy les six personnes maanaam Aba Diédhiou Euh, ah, a Alassana Diédhiou Ismaila Diédhiou Yankuba Diasobolok Sané Arafan Sané ak Omar Sané moom la moom ñoom ñoom ñooy véritable euh, tueur de Omar Lamine Badji ba yéen tey tam ngeen di laaj maanaam justice ci dossier Oumar Lamine Badji est-ce que loolu dinañ ko mën a comprendre du fait que am na procès jugé nañ am na ñu ñu condamné am na ay coupable léegi yéen ngeen continuer di réclamer la justice quatorze ans après l'assassinat d'Oumar Lamine Badji lu ko waral Seydou Badji waaw lu ñuy wax leer na de ci nopp sénégalais yi ñu daan déglu depuis le début ñun dañu ne jusqu'à l'extinction du soleil tant la vérité n'est pas dite Mm-hmm. ñun dinañu continuer ci bataille bi la bataille elle est juridique il y trois fuyards ñoom ñooy yor bi information yi il faut les extrader c'est ça loolu lañu leen xaar loolu moo tax mm-hmm. euh, décembre deux mille dix neuf dañu jël décision pour bind ministre garde des Sceaux ministre de la justice garde des Sceaux pour ñu réclamer l'extradition de ñi nga xam ne ñoom ñoo daw ainsi donc bu ñu ñëwee bu ñu leen delloo si fii Sénégal dëgg bi dina feeñ te dëgg bi moom feeñ na ba pare donc dossier Omar Lamine Badji c'est au niveau foofu la décision bi am pour ñu rey Omar Lamine Badji parce que gisuñu benn raison pourquoi su fekkee ne ñooñ ñoo décidé pour rey Omar Lamine Badji dafay yomb mm-hmm. mais facile dinañu am la vérité mais fii fu ñu toll nii aucune vérité n'est encore dite ce qui est constant mooy ñi nekkoon ci réunion ba ñëpp reconnaître na ñoom la. Mhm. parce que ñoom seen biir ñoo dénoncé seen bopp. Mhm. wax ne diw ak diw li ak lii ak lii ak la wax voilà dañu leen jàppee si loolu dañuy wax loolu yëpp ba mu leer ci euh, euh, enquêteurs yi devant le juge d'instruction et leur avocat donc jugement day war a am. kon bu juge juge bi ne la voie politique n'est pas encore explorée et les commanditaires qui ont fui qui qui, qui, qui on ne qu'on ne connaît pas ils sont encore en fuite donc ñooñu il faut que suba ñu mën leen euh, yëkkati pour ñu mën leen déglu bu baax. en tout cas moo tax voilà ngeen comme waay ay ca mm-hmm. foofu. Mm-hmm. waaw loolu ma loolu ma tax ñu daan am habitude dañu ne affaire Amar Lamine Badji am na des bandits à col blanc ñooñu dañu xaw a dangereux. Mhm. parce que un bandit à blanc amul leneen bu lu force la am force am mooy état moo koy protéger depuis booba ba tey de la vérité loolu la sauf le justice bi buté bu amee information bu leer dina ci dugg te information bu leer nekkul ci kenn. Alain moo ko yor Ampa moo ko yor Yankuba Diasobolok Sané moo ko yor Oumar Sané ñoo ñoo war a wax dëgg bi il faut que véritablement que ces gens là ñu déggulaat leen ñi ñi nga xam ne ñi dawoon ñi daw di moins ñu delloo leen Sénégal loolu mooy wax ci tant que ñu delloo lu ñu leen Sénégal ñun duñu bàyyi di réclamer justice la justice a fait son travail. Mm-hmm. nañu waxante dëgg. loolu mooy wax ji. mais vous parlez de justice et de réconcilier de de justice maanaam la vérité et de réconciliation lan lañ mën a dégg foofu exactement si dossier Oumar Lamine Badji. waaw xam nga mbir bu nekk da ngeen am stratégie. Mhm. communication. suñu première communication ci volet boobu ñëwal wax vérité et réconciliation dafa leer suñu bopp. loolu lañu ñu bëgg a leeral tey. deux mille dix neuf décembre deux mille dix neuf jël décision que maintenant il faut ñu jàkkarloo ci ministre de la justice garde des parce que et l'État c'est la continuité ki yoroon dossier ba am na nu dossier bi nu ñu ko tëralee am na fu ñu ko teg kuy ñëw dina jël dossier bi lan la bi ñuy waxtaanee ci mbir moom ba ñu xam ne que lool boo may première fois ba ñu war a jàpp loolu la décidé ak famille bi yëpp ñu bind lettre famille bi bind signé par un frère biologique mooy maanaam rakk Omar Lamine ñu bokk yaay ak pap moo signé ñu déposé au nom de l'ensemble de la famille que ñun ba léegi on n'est pas content du jugement qui a été rendu le 26 janvier 2015 c'est vrai ni ñuy condamné bokk nañu mais am na benn élément bi ma fàtte. Mhm. loolu mooy exclusivité pour yow. ayca Seydou <laughs> mooy lan. Mhm. voilà gis na bi ñu doon jugé euh, euh, les sept personnes à à à Ziguinchor. Mhm. du sept personnes huit lañu. huit en huitième bi fan la nekk ñun euh, Kolda foofu lañu ko tëj mhm. ñun nag bi ñu ñëwee information ñuy am mooy ñu ñuy war a juger huit personnes la mais bi ñuy déclaré ci dossier yi sept la ñu présenté huitième ba mu nekk Kolda moom bokkul ci jugement bi léegi nag pour ñun comme xamañu ñu ci côté justice dañu ne ah xanaa moom dinañu xaar euh, les assises de Kolda or le 2015 toutes les assises pour la région de Kolda pour les condamnés de la région de Kolda les condamnés de la région de Sédhiou ils sont jugés par un juge à Ziguinchor pour la ñuy convoquer les assises parce que ba léegi système judiciaire peut-être joxewul euh, mandat pour que des des se déroulent à Kolda et à Sédhiou kon li tubaab mhm. cette personne étant encore à croupir en prison à à à Kolda y a problème li gën a graaw ci mbir moom. Mhm. janvier la ñuy juger les sept le huitième n'est pas jugé nous sommes janvier février mars avril ñu dégg ne dañ ko libéré comment dafa bénéficier de grâce présidentielle mm-hmm. foofu mooy lu ñuul il faut dire la vérité mm-hmm. Mm-hmm. pourquoi il a été emprisonné pendant huit mois pardon pendant huit ans moom mu ngi tëdd kaso kenn mësu ko dégg ci devant euh, une cour d'assises ba avril deux mille quinze ñu libéré ko mu ñibbi këram loolu moom lu ñuul la lu grave la mais foofu ñun waxuñu duñ ko toppatoo mm-hmm. mais beneen fusible la boo xam ne ñu ngay xaar ba ci kanam ca année yi ñëw incha allah mm-hmm. ñu ngi leen di fàttali yéen a seen émission euh, sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal euh, Seydou Badji Seydou Badji nekk coordonnateur bu collectif anniversaire Omar Lamine Badji nekk tamit porte parole euh, bu famille bu Omar Lamine Badji nekkoon président bu conseil régional bu Ziguinchor bi ñu assassiné woon kon tey jii ñuy waxtaanee mbir mi parce que ci 30 décembre bi rek lañ doon fêté 14 ans bu assassinat. département bu Omar Lamine Badji euh, ba léegi sax bala ñuy ñëwaat ci dossier bi dinañ la laaj tuuti euh, Seydou Badji en tant que frère bu Omar lamin Badji kan moo doon Omar lamin Badji exactement ba tax ñu fexeel ko lu ni mel. waaw. kan ban taxawaay la amoon voilà ci Ziguinchor. jàmbaar la parce que Omar Lamine bi muy dugg école régionale de formation pour des instituteurs c'était les années 60 mu commencé di jàngale en 1963 ba 74 mu am benn parti d'opposition ci lañ Omar si lañ découvrir jàmbarte Omar Lamine ci la bàyyi lépp dugg ci politique mais en étant instituteur ci lañ commencé comprendre que dafa am vision kon du ko tuuti su ma ne damay lim Omar euh, lépp lu nga xam ne loolu la ñu xam ci moom du ñu pare ci émission bi mais lu tuuti lay joxe bi ñu duggee parti démocratique sénégalais donc booba euh, dafa mel ni dafa changé kanam politiku bu biño na mu amay jafe-jafe jamono booba parti unique moo amoon mooy PS mu jànkonte ak ñoom lu métti métti la amoon am na leneen loo xam ne duma ko wax ci antenne parce que parce que rafetul mais jamono ba moom meloon noonu mu résister ba 1988 ci la ñu commencé dégg kan mooy Omar Lamine Badji alors que liggéey na depuis 74 ba 88 mais lu bëri la indi force la indi Casamance wane jeunes yi comme ñun te nit war na libéré boppam. maanaam gëm sa bopp Omar loolu xam xam nañ ci moom fullaak fayda taxaw na ci bépp fanam fànn foo xam ne moo fa nekkoon responsable wane na boppam loolu moo tax rapidement mu nekk secretaire général de la fédération départementale de Bignona depuis bu ñu ko tàbbee ci poste boobu ba muy jour bi muy gaañu moom mooy secretaire général fédération départementale de Bignona loolu la ñu koy reproché maanaam moom dafa nekk force boo xam ne kenn mënu ko diplômer parce que nit ñi dañ ko bëgg politique loolu la da ngay am base mu dëgër même bu la ñu bëggee génnee base bi moo voté pour nga mun a jàll nga mun a toog ci nga toog loolu moo tax muy remplir chaque année chaque renouvellement de de du bureau de la fédération mu nekk euh, euh, secretaire général de la fédération si le parti bi gis ne que jàmbaaraango ñu andi ko ci secrétaire directoire du parti boobu tamit yàgg na fa ba jour ba mu jógee àdduna kon mbiram su ma koy lim bi ma jeexal si lañ ko jox ay confiance ñu teg ko comme premier euh, président conseil régional bien Ziguinchor quand le parti démocratique mi di gagné la région au niveau du conseil régional moom lañ fa teg mais euh, Kumba. Mmh. difficile. Mm-hmm. parce que euh, am na ñuy doon wax ne ñoom ay cadre lañu kon Omar méritéwul place boobu mais li ma mën a wax Abdoulaye Wade mi nga xam ne mooy secrétaire général partie bi moom xam na ñoo ñuy wax ñoom ay cadre lañu nekkuñu ay égal Omar Lamine Badji mais dafa négocier ak ñoom ba Omar Lamine di diriger. l'ex-président du conseil régional en même temps mu nekk secrétaire général de fédération départementale de Bignona en même temps mu nekk directoire national du parti démo démocratique du Sénégal en dehors de ça depuis que Wade gagné présidentielle bi daf ko daan yóbbu ay mission kon yooyu yëpp bi muy commencé di dem mission ci la commencé affaire yi euh, am euh, am ay difficulté deux mille cinq ci la affaire yi gën a gën a feeñ donc ñi commencé di ko xeex donc euh, foofu laa mën a wax parce que comme li ma la wax mm-hmm. du du du ñu jeexal mais loolu résumé la rek kon Seydou bu ma déggee si li nga mm. wax piste bi nga xamante ni justice daf ko écarté piste boobu la ñu mm-hmm. waroon gën a exploité ci assassinat bu euh, Oumar Lamine Badji maanaam la piste politique effectivement voilà maître am loraat ci boppam mm-hmm. bi muy ñëw ci jour rabu Omar Lamine li ñuy wax euh, cérémonie funéraire à bi a Ziguinchor bi ñu ko bi ñu génnee néew bi ci ci hôpital bi information bi ñu njëkk a joxe mooy piste yaa ngi nii bu nekkee piste boo xam ne mu ci biir sama parti dinañu leen topp bu nekkee beneen piste dinañu leen topp lim na ba trois pistes donc mais la première piste bi ñuy li ñu yaakaaroon foofu écarté nañ ko bu yàgg mooy la piste MFDC mais nag lu tax MFDC ñu tudd ko c'est parce que am na benn élément mu nga xam ne am na ku ko démarché mu génn ci euh, base ba ñëw bokk moom mooy Ismaïla Ampa Diédhiou donc NFDC bu ñu ko écarté kon il va rester quelle voie il restera la voie des commanditaires qui est certainement les politiques mais à plus aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo d'accord dañuy d'accord pour ñu réer Omar Omar Lamine Badji mu nekk ñaari voix kon la voie politique c'est écrit noir sur blanc dans le procès verbal des enquêtes et de la et justice moom tamit annoncé na ko ci jour boobu mais euh, nañu revenir toujours ci le 26 janvier 2015. Mm -hmm. juge bi ba muy commencé ci lire euh, textam nee na li ma remarqué tey musul am ci as asile asile asile yi nga xam ne mus naa ko diriger mooy lan absence des journalistes jour boobu xaw ma yow Kumba Moro mhm. foo nekkoon demoo Ziguinchor Ziguinchor mhm. les correspondants des rajo ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar ay journaux yi nekk Dakar tout ça kenn ñëwul ci pour couvrir euh, les assises yi nga xam ne dinañu juger ñi reyoon Omar Lamine Bati muy mbir bu ñuul naka ngay convoquer benn assise ba pare ñu fexe à toutes les organes ñu fexe leen seen journaliste ñu dem di couvrir ay tournée de deux minutes dans la région loolu xaw a la donc euh, loolu euh, mooy il faut dire la vérité que ñi rey Omar Lamine Badji ils sont haut placés voilà lu ñu mën a wax. Mhm. ci côté boobu. waaw d'accord 30 décembre bu jot ngeen koy fàttaliku ñuy fàttaliku assassinat bu Omar Lamine Badji yéen saa su ne 30 décembre nan ngeen di marqué euh, anniversaire u assassinat bu Omar Lamine Badji. waaw tubaab nee na li wax pérennisation. de l'œuvre de kon jour boobu euh, war na nekk jour bu neex pour ñun parce que boobu la ñuy présenter Omar bi mu nekkee politique am na ñu bëri xam nañ ko mais lu mu liggéey ñu bëri dañ koy dañ koy fàtte kon léegi lañ ko war a rappeler pour que euh, jeunes yi ñëw ñu mun a inspiré wu ci Omar Lamine yi ci loolu la ñu wax ne que il faut que l'anniversaire ci martyr El Hadj Omar Lamine Badji ñu mën a ko continuer at bu nekk même bu demee ba ñu xam la vérité dinañ am ay activité ñi dem ci mbir Omar Lamine yi ci loolu nag am nañuy projet yu bëri ba léegi xëy na temps bi la ñu amul des na ay information parce que ñu ngi ci ñu ngi ci bi mi xëy na incha allah d'ici trois ans quatre ans en tout cas dina am livre boo xam ne dinañ ko génne boo xam ne dina tracé Omar Lamine bi mu nekkee tout tànk ba bu ñu génnee ba mu génnee aado am incha allah. Mm. loolu dinañ ko def mooy l'œuvre du de Omar Lamine Badji mm. kon loolu mooy euh, partie bu gën a important. dans les anniversaires yi ñuy tenir chaque année. d'accord loolu boo ngeen ko mën a noter. Mhm. mooy amul Sénégal benn euh, responsable politique mu am doole. Mhm. mu génn àdduna ay mbokkam ay xaritam ay jegenaaleem ñëpp ak date bu jot rek dinañ ñëw toog ñaanal ko def lépp. wax rajo yëpp dégg télé yi jël ñëpp comprendre ne que jour bi jour Omar Lamine Badji la danga may may tuuti ma taxaw ci mbir moomu oui oui mhm. waaw dem nañu ba euh, douzième euh, anniversaire ndeysaan Moussa Sow euh, non Moussa Bala tudd moo nekkoon sous-préfet bu Sindian dafa remarqué que comité bi ak famille bi dañu am benn constance maanaam musul dellu ginnaaw ci dat bi ki la décidé en douzième douzième anniversaire nee na bind na anniversaire Omar Lamine Ber Omar Lamine Badji comme programme de la sous-préfecture maanaam bés boo xam ne su ma ki fa nekk comme sous-préfet dina fa envoyé euh, représentant bu amee jot dina ñëw administration dina am ñi nga xam ne dinañu bokk ñu ñëw famille bi toog déglu euh, recueillir yooyu yëpp ñu ngi koy def alors bu lool amee nag comment se fait ñun ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fexe pour que ñu fàtte Omar Lamine Badji loolu la ñuy wax ne que dañuy sonal seen bopp dañuy sonal seen bopp kon ñun ci taxawaay boobu la ñu nekk pour toujours engager et suivre le dossier de Omar Lamine Badji. voilà yan mooy lañu am. waaye ca oui. Mhm. oui moyens yi euh, 2017 am nañu partenaire 2019 ñu dugaat ci beneen partenaire boobu mu mun naa wax ne que am na solo premier partenaire mooy am amnistie. parce que jël na en partie ce combat même si ba léegi amagu amaguñu programme bi ñuy dérouler mais ñu ngi ci donc loolu mën naa wax ne que partenaire la 2019 mu am ay activistes ñi nga xam ne mu nga bitim réew ay africains lañu jël nañ décision que dinañ dugg. ci dossier Omar Lamine Bati malheureusement mbas mi ñëw feebar bi maanaam euh, Covid 19 bi moom moo bloqué ñëpp mais incha allah d'ici mille vingt balaa muy bii deux mille balaa muy jeex am nañu yaakaar dina am grande manifestation à Paris. Mm-hmm. boobu xam nga pour lan. pour lan. très bien parce que wax naa la am am na ku daw. Sénégal mu nga Séné mu nga euh, euh, France mu nga benn dëkk bu ñuy wax Avignon kon les activistes africains ñi nga xam ne ñi nekk en en Europe en particulier en France bu ñu jéngalee mbir moomu am nañu yaakaar ne état Sénégal ak état France dinañu nangu pour extradition boobu am loolu mooy exclusivité pour euh, Rewmi FM. li ma bëgg a wax tey jii nii. dëgg la donc euh, voilà en fait li ma bëgg wax comme programme bu am solo. incha allah d' accord ñu laaj la leneen ci euh, Oumar Lamine Badji ba léegi am na benn lycée bu ñu tuddee élage Hadj Oumar Lamine Badji est ce que mën nga ñu waxal ci lycée boobu exactement avant la wala c' est après la mort d' Oumar Lamine Badji. oui euh, loo ma yay mandargal yoo xam dañuy immortaliser Omar Lamine Badji ñuy l'ancien président de la République en l'occurrence maître Ablaye Wade le jour des obsèques bi mi mu ñëwee à Ziguinchor pour euh, comment dirais-je ñi koy waxee ci olof maanaam bu dëj bi ci la yëkkati kàddu mais préparé na ko balaa muy wàcc Ziguinchor parce que foofu la ñu mujj njëkk dem tudd lycée bu Djibock élage Hadj Omar Lamine Badji donc le lycée de Djibock depuis jour boobu la ñu koy tudd El Hadj Omar Lamine Badji boobu mooy première surprise bu mu def famille bi bi mu ñëwee ba Sindia mu def discours am wax lu bëri ci la ne sama permanence nationale pour PDS mm-hmm. à partir de tey suba dinañ ko tudd El Hadj Omar Lamine Badji loolu ngeen di dégg souvent balaa ñu fay dem réunion. dëgg la communiqué yi. ñu koy wax da ngeen dégg ni ñu ñu koy wax. ba tey voilà Omar Lamine Badji. Omar Lamine Badji. c'est vrai mooy léegi li ma yokk tuuti. PDS bi nekk ci VDN bi no pour. VDN bi exactement ma koy rappeler auditeur rek moom lañ tuddee. Mhm. Euh, permanence bu parti démocratique sénégalais bi nekk ci euh, VDN bi voilà permanence. Euh, maison bu parti démocratique sénégalais Omar Lamine Badji ayca. waaw da nga may may ma des tuuti ci lycée du Diouf boobu bi ma koy tuddee lycée bu baax la woon amuloon benn problème parce que bâtiment yu baax lañ fa teg yoon yu baax mais dañu constaté daaw proviseur bi ci boppam génn na ci réseau yi di ngañ état en tant que fonctionnaire di leen wax ne la lii jaaduwul waxul ne lise bi ñu bu tudd Omar Lamine Badji wala leen ko teg ci lii mais moom mu fay dund en tant que responsable lu mu gis rafetul mooy lycée bi mu nga bëgg a daama yoon yi dem ci boo lycée ba oto mu saa egg buñ jëlee seen taxi pour jëw jàngale ji dafa am fu ñuy arrêté dox ba lycée ba parce que fu nekk ay pax la ci biir euh, lycée bi da ngay yaakaar ne ay nag lañu fay bàyyi vraiment loolu xaw nañu touché il faut ñu wax dëgg fekkee ne ñun ñu ngi défendre la mémoire de Omar Lamine Badji fu ñu tudd tur Omar Lamine Badji ñu ne fii ñun lañu tudd Omar Lamine Badji dafa war a nekk lieu bu rafet lieu boo xam ne boo fa duggee di nga kontaan en plus benn lycée la lycée boo ko bàyyee muy yàqu mais élèves yi mënuñ fa jàng lu jàng bu baax loolu lañ moo tax biñ ko déggee alors ñu profité si si antenne yi ñuy interroger. waaw di wax mbir moomu. voilà tey tamit maa ngi revenir ci mbir moomu. voilà vraiment nu ñu koy naxarulu vraiment. vraiment c'est est-ce que Seydou Badji am ngeen mhm. yaakaar ni euh, peut-être mooy suñu ñax question sax euh, que yéen ak euh, jéego yi ngeen teg nii ak xeex bi ngeen di mhm. xeex est-ce que li ngeen mhm. bëgg di ngeen ko am moom mooy justice am réellement ci dossier bu Omar Lamine Badji est-ce que am ngeen si yaakaar waaw wala déet wala da ngeen di yuuxu nii rek pour ñu xam ni vraiment justice amul woon. waaw xam nga fu ñu butee wax nga dëgg de yuuxu bi moom bëri na bug <laughs> euh, moon ree ne ce côté là est un peu humoristique ndax euh, yaakaar bi teguñu ko fen mu dul suñu euh, justice ah deuxièmement su fekkee ne famille bi ñun ci ñun la des en en fait parce que suñu partenaire dañu ne fu ñu am détermination foofu dama war a faf dëgg à part que famille bi nit ñi dañuy mobiliser ñëw ci anniversaire bi mais des na ci mobilisation pour que les ONG par exemple comme Amnesty ñu mën nañu ñu accompagner maanaam li ñuy préparer à Paris mu mën a antu mais force parti famille famille bi moo war a dugg mais en particulier mën na wax les sénégalais d'une manière générale mais loolu soo xoolee c'est en fait boo xoolee danga mel ni culture sénégalaise la Sénégal sénégalais moom am na lu bëri loo xam ne day difficile faalewu ko dañuy rey doomu adama du du du du teg benn du euh, affaire boo xam ne boo am solo kon bu amul mobilisation état de continuer def lu ko man je répète que cette affaire-là c'est une affaire de l'État bu nangoon suba dañuy xam la vérité mais nanga la mën nga mën wax ne ki nekk Gambie mënuñ ko indi de Gambie à à Dakar c'est pas sérieux foofu la mbir mi nekk surtout mais ñun gëm nañu ne bu ñu continuer bataille bi dinañ xam lu leer mais incha allah suñu dernière bataille mooy ñu génn benn livre boobu dina des ci àdduna maanaam pour la postérité kenn du ko fàtte élève bu jàng livre bi en deux mille cinquante huit dina gis li amoon en le le le trente décembre deux mille six à Sindian Sindian siw na ci côté boo xam ne ci rey Omar Lamine Badji daf ñuy déranger dañu bëgg suba ñuy cité Sindian euh, ñu wax ne que ah jàmbaar ba fa nekkoon trouvé nañu solution bi ñu ko reyee xeex nañu quinze ans ci vingtième année wala vingt cinquième année ci la ñu am vérité kon ñun jusqu'à à vie la vérité moom la ñuy xaar. wala oh, Seydou Badji kontaan nañu trop ci leeral yi nga xamante ni indi nga ko ci dossier Omar Lamine Badji xam naa dañ lay bàyyi euh, nga tàggoog auditeurs yi ak internautes yi. merci merci Ndeye Comba Moreau maa ngi jaajëfal euh, seen rajo c'est la deuxième fois ngeen tendre ma micro et ngeen may ma temps bu yaatu pour ma wax sénégalais yëpp ci mbiru Omar Lamine yi li may yokk mooy malgré mbas mi euh, mercredi si ñoom nit ñi dañu fees encore. comme si amuloon corona te pourtant dañu décidoon pour def ko ci mbiru famille mais nit ñi ñëw nañu fu nekk fii Bambilor fi nga xam ne soxnaam fa la nekk foofu tamit macha allah maa ngi jaajëfal journaliste yi du ma organ mais tey euh, réew mi FM moom moo aaye mercredi pratiquement euh, les correspondants régionaux. des organes euh, de presse à Ziguinchor def nañu seen liggéey ba ci yokk bon du ma cité benn rajo Sénégal euh, à Dakar à Dakar moom tamit dugg na ci mbir mi pour vulgariser notre position wax na euh, passé na information bi yow nga may ma occasion bi tey donc merci encore une fois et maa ngi jégalu auditeurs yi ñi may déglu sama olof moo leerul. Mm, olof leer na de leer na de. <laughs> merci Maro. <laughs> leer na leer na macha allah Ndeye Kumba Maroon merci. monsieur Moro nag du Maroon de je ne suis <laughs> Moro Moro. Moro comme Élie Charles Moro. waaw Moro Charles Moro oui c'est mon oncle. voilà c'est mon frère voilà. ah oui c'est un ami. voilà comme voilà kon ñu ngi koy euh, remercier bu baax a baax kii di Seydou Badji nekk euh, oh. coordonnateur euh, bu collectif anniversaire Oumar Lamine Badji nekk tamit porte-parole bu famille bu Oumar Lamine Badji ñu doon waxtaane dossier bu Oumar Lamine Badji assassinat bu Oumar Lamine Badji 14 ans après ngeen gis ni ba léegi famille bi ñu ngi réclamer justice même bu fekkente ni am na ñu ñu ci condamné kon nag ñu ko doon waxtaane ak Seydou Amadou di ko remercier bu baax a baax ci leeral yi nga xamante ni indi na ko ci dossier bu ancien euh, président bu conseil régional bu Ziguinchor di Oumar euh, Lamine Badji di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h ci seen émission sociale toute la ville en parle di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi kon ba samedi prochain incha allah ci 10h euh, jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité boobu déglu ko ci suñu euh, chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet di point com www.rewmi.com point com ngeen jëf